def la part des choses. Euh, compte Sen TV bi ñu ko tëjee def ça fait un an. ok euh, compte Zik FM kañ lañu ko tëj. Euh, Birahim demandé na ay explications. ci lan moo sabab ñu singale groupe de média képp. et pourtant am na yeneen presse yoo xam ñu gën a virulente par rapport ak critique hmm. du ñu dong ñoo fi nekk def débat. ñun donc ñoo fi nekk di def ay compte euh, contre actif du ñun donc ñooy invité am liberté ci wàll presse yeneen télé yaa ngi fi ni gàdd di def di def comme ñun mhm. donc où est problème question boobu laa posé woon te moom laay posé waat démb dama wax ni jot na même direction bi rencontre liggéeykat yi nekk ci kër gi parce que le 12 ba le 13 boo nekk ay liggéeykat ci am problème yow société bi ak fisc ngeen nekk ci bras de fer donc liggéeykat bi mënagul jot saleeram am jaadu na nga rencontré ko jox ko ay information parce que bokk nga ci membre fondamental yi taxawal kër gi mais ñëpp mënuñu ko balaa ngi seet balaa am am ñenn ñuy souffrir war na am information yu jóge ci direction bi ñëw rencontré leen loolu benn la ñaareel bi ci des ñun am nañu droit laaj suñu kër pourquoi chaque année ñu nekk cible gouvernement ci wàllu fisc pourquoi yab la mm-hmm. gis nga joytu yi ñuy def bu yàggee dañ daf ñuy def ñuy daf ñuy décrédibiliser askan wi cette fois yi man bokk naa si amoon engagement duñ sax wax lu ñu nar nañ ko def mu leer wala ñoo xam fan la dëgg ji féetee il est grand temps ñu xam fan la dëgg ji féetee parce que it nag parce que it nag gis nga lii nii du honoré wul c'est-à-dire mënoo xëy sangu ba set ñëw pour liggéey si def sa mission de façon très noble dem ñibbi di jooy suba ba ngoon di lamenté wu suba ba ngoon ça suffit. léegi nag ñun la ñuy ci ñaari côté yépp mooy gouvernement bi nañ ñu bàyyi ñu liggéey mais direction bi nañ wax lan moo xew. Mhm. pourquoi nous chaque année. pourquoi nous beneen bi ci des du du du du bras de fer si on veut bien sauver notre entreprise nekkuñ ci ay moment bras de fer parce que du moment boo xamante ni bii. Euh, ñun politique gu ñu quoi. je veux dire ñu quoi. dañuy liggéey dañuy dem wax ak fisc la réalité parce que seen dafay nekk pour sénégalais yëpp ñu tënk la ñuy tënk après continuer suñu liggéey quoi xam nga il faut il ñun jegewuñu politique quoi. ñun tam ñun ñoo war a def la part des choses jàpp naa ni ñun suñu situation bi ñuy dund. bu ñu koy comparer ak politique bu ñun dañ naan ñun xamuñu sax ñuy defee analyse koi dañuy mm. daanu. suñu yoon nekkul ci wàllu politique ñun ñoo waral laaj pour pourquoi nous chaque année. jotaay waxtaan pour trouver benn solution ak lan moo tax muy nekk ñun. li ciy paaru direction bi ñu xam ko li ciy paaru fisc ñu xam ko ñu xam ban tànk la ñu fecc mais ñun tam ñu nekk ay mag jëmm après chaque jour ñu dugg ci xeex boo xamante ni bii xamuñu lan la xamuñu lan mooy base bi xamuñu lan la. sérieusement xamuñu lan moo tax nguur gi singale ñu xamuñu lan moo ne ci ginnaaw. soxla nañu direction bi waxtaan ak. lu may fàttali ci ñi ko ñi ko xam naa ni élèves yaa ngi dégg ak ñi ñi jàll école euh, li ñu naan la fable du du loup et de de l'agneau. Mm-hmm. Euh, bi nga xamee ne daa ñëw jàpp ni Mansour moo def waaye gisul Mansour. Mm. ndax xewoon nga ko. kooku ko fekkoon mu ne non waaye sax am na keneen ku ko fekkee koo xam ne gis na la sa veut dire que yéen ñëpp lay boole. ci côté boobu lañ jàpp ni benn nit la ñuy singali mais benn nit bi ñu singali lu tax ñu singali ko c'est pas le seul patron de presse wala ki yore organe de presse mhm. boo xamee ni moom moo bokk opposition moom mooy mooy mooy mooy xëccoo pour ay mhm. élection muy législative wala mhm. locale wala présidentielle waaye employé yi nga xamee ni ay journalistes lañu ñu ñu jox leen ne leen foofa na dangay ngay bokk ci commentateur wala dangay def nangam ñooñu laalewuñu lenn ak Bougane je le dis je le maintiens je le répète pour ñi ñuy seetaan ñi ñuy déglu bokk ci nguur bokk ci opposition Bougane Gueye ni du woo Birahim Touré ne ko euh, dalal ci kaw diw mhm. Bougane du woo Mansour ne ko dalal ci kaw diw non il nous laisse faire notre travail de manière professionnelle moom politique oui justement dañ koy eh, eh, dagguma la alors Bougane Gueye Dany mi ngi nekkaan direct euh, par rapport ak explication yi nga xam ne moom la ñu soxla woon tout tantôt ñu ko doon euh, interpellé alors euh, moom mooy njiital groupe des médias Bougane Gueye Dany ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant bu baax ma Mambay di sant ñi ci plateau bi. gis nga war a wax warula taxaw wax loo xamul. ci au niveau de des médias bi de problème bi déclenché. xamuloo exactement tout ce qui s'est passé wax leen ma yéen ñi toog ci taabal bi bi ñu njëkkee indi redressement wu des médias wax leen ma ku toog ci taabal boobu tax xamul exactement ce qui s'est passé gis nga nit ak rabbikum nit day wax dëgg man wutuma ku ma xeexal ma kenn ku ma xeexal il faut qu'on soit sérieux Alioune bind na ko léegi wax ngeen ko nu ñu mënee am ñun ñu redressé ñu ci même année yooyu nga xam ne presse bi yëpp bénéficié wu na ci amnistie dañu waxante dëgg aide à la presse bu mujj bii wax naa leen aide à la presse Sen TV dañ ko jël dugal ko ci compte bi nga xam ne moom lañ tëj pendant combien de temps yéen da ngeen xam nu ñuy def pour fay leen est-ce que xam ngeen ko ndax seen ta seen mu yore nañ leen benn weeru salaire est-ce que yoreel naa leen ko da ngeen mos a xam nu ñuy def pour fay leen est-ce que kenn ci yéen mos na ko lijjanti seen TV compte yi tëj nañ ko daanaka fukki weer ak ñeent wax leen ma yé kenn ci yéen ñooñu ko ko lijjanti wax leen ma kan lañ ci mos a waxloo pour mu wax ci borom dëj bi day jooy dëjëm soxlawuñu kenn di jooytu wala di yuuxu li ci des nag bu ngeen ko defee seen cër la bu ngeen ko deful seen cër la man des médias man Bougane Gueye aw ma fa litre carburant yéen yéen a fa yor yéen a fa nekk seen ay salaire yéen yéen a am lu romb seen ay salaire ci seeni mbir ci seen i lijjanti ak seeni i dem dam ak seen i def donc il faut qu'on soit sérieux soyons plus sérieux que ça man wutuma ku jooyal wutuma ku xeexal borom dëj bi dafa yàgg di jooy dëjëm vingt trois ans laa ber suma yëfi bopp ba fi may wax yow nii musuloo maa dégg ci lenn mille milliards la junni ci ay milliards inspecteur des impôts yi ñëw ñeenti weer xaw ma ñetti weer gëstu biir déemé bi gëstu samay comptabilité toog fa pendant ñeenti weer fa ñu mujjee mooy bindal ma këyit ne ma bugaan yoreeloo dërëm impôt yoreeloo ñu dërëm ñun waa impôt këyit baa ngi fi brandir naa ko Sénégal gis nañ ko waaw ku yore mille milliards mu jaar ci loxoom junni ci milliards ci juróomi at mu liggéey ci yoreelul un franc impôt waaye waaye ndax des médias bu am ñaari milliards ci chiffre d'affaires ci ñetti weer ñetti at xaw ma est-ce que kooku mën na laa yoreel trois milliards six gis nga wax bu dofee nopp yi koy dégg muy nite man xeexloo ma kenn musumaa mhm. xeexloo kenn yéen ñooñu toog ci taabal ji ku ci nekk am na foo féete ñii ci tarixa ñii ci leneen ak leneen ak leneen il faut qu'on soit plus sérieux que euh, euh, waaw est-ce que comme li ma wax sànq mën nañu jàpp tey nii c'est pas des médias wala les travailleurs mais c'est plus Bougane Guèye Dany qui est ciblé ndax ñu ngi koy fàttali. muy Régidac d'accord joni joni bi nga tudd tey Sen TV Zik FM ba ci tribune amoon ay jafe-jafe est-ce que ce n'est finalement c'est pas Bougane qui dérange euh, euh, euh, Birahim boo fàttalikoo mhm. journal bi ñëw na ci tey mhm. bi ñu ñu defee redressement ñun dañu def demande d'arbitrage mhm. loolu ñu ngi ko def le 21 janvier le 21 septembre astafirullah le 10 septembre 2021 waaw 10 septembre 2021 ba tey décembre 2022 ñaata weer la mhm. waaye tontu sax amuñu ko tontu amuñu ko ci administration finance euh, administration fiscale yenn saa yi communiqué li ñuy génn balancé ko ci ci ci télé yi ci télé yi wala ci journaux yi mhm. demande d'arbitrage dañ ko def ne leen ñun d'accorduñu ci li ngeen ñuy wax mais non seulement d'accord ñu mais dañ leen yoreelu li ngeen di laaj ma jox la exemple bu ndaw rek koo xam ne mun naa feranku laay wax ci Sen TV dafa bokk ci euh, lu ñuy wax ñoom ñoo ko jël féetale ko euh, lu ñu tuddee centre des moyennes entreprises et logé au centre des moyennes entreprises bépp société boo xam ne defuloo cinq cent millions de chiffre d'affaires waaw ku deful cinq cent millions de chiffre d'affaires naka nga ko mën a laajee deux milliards trois cent koo xam ne yow ci sa bopp yow yaa ko classé ne CM1 e nga bokk maanaam centre des moyennes entreprises fa nga bokk mooy ñi dul def cinq cent millions de chiffre d'affaires waaw kooku noo ko mën a laajee deux milliards trois cent moo tax ma ne wax bu yi koy dégg muy nite ñi ñiy critiquer ñi fi am ligne rédactionnelle bu acerbe bari nañu mais ni ñu leen di dégloo yéen dégloo wuñu ko ñooñu la ma Babacar Touré jëm si yàlla ji waxoon ma ne ko euh, doyen yow lu tax chaque fois rek nga bind lettre di di di di mettre en demeure euh, euh, Zik FM ak sentive TV mu ne ma parce que yéen la ñuy déglu ñeneen ñi ñu ko defee garaawul parce que kenn dégluwu leen hmm? c'est aussi simple donc finalement sama sama laaj bi demal demal demal léegi nii ci Facebook bi nga xool ñu ngeen nekk ay deux mille six cent deux mille nekk ak quatre cent treize dem leen xool mal ba léegi ba léegi. Birahim temps bi daf ñuy xoj aussi. waaw non parce que tontu woo maanaam tontu woo laaj bi mooy li tax ma laaj bi non. laaj bi est que je donc ci laaj bi. ah euh, non dama ne ci laaj bi. Mm. waaw ci laaj bi ñëw ci laaj bi ñëw. voilà dama ne. Hmm. yemul ci des médias rek. c'est ça wax nga ko jooni jooni mais euh, yooyu ay entreprise lañu yoo xam ne Sénégalais yi ñoo fay liggéeyee euh, euh, panneau yi fàttaliku leen Ablaye Sow Ablaye Seydi Sow dafa ñëw toog biir Sen TV je suis ma dugg ci biir antenne bi ma ne ko panneau publicitaire yi ngeen di dindi jubluwu leen ci kenn. kenn dong ngeen ci jublu mooy Bougane Gueye man maa ëpp panneau publicitaire ci Sénégal tey fexe nañu ba mille deux cent panneaux yi ñu amoon yépp dindi nañ ko fu nekk dindi nañ ko rocci rocci rocci ba desewuñu trois cent panneaux desewuñu ñun trois cent panneaux ci Sénégal alors que on est on était la plus grande régie publicitaire au Sénégal avec plus de mille deux cent panneaux loolu Macky Sall li ma wax démb ca laay wax ca laay dellusiwaat man atum atum at bi ma juddu ragal juddu ca <laughs> adduna du yàlla moom Macky Sall yuuxu mu may dégg yàlla man dimbali na ma te ba mu ba may dimbali man xaw ma ko moom. donc li muy def. ma ko man yi Sénégalais yi la koy def yéen ñëw ñu di liggéey la koy def. les Sénégalais jaajëf. voilà voilà ñu koy jaajëfal ah. leer na euh, leer na explication yi. xanaa dañuy tànn ñaar ci ay quotidien rek def revue directement après euh, xibaar yi yéen kay groupe des média yaakaar naa ne jaratu ñu si taxaw lu bari ndax euh, leer na liñ si doon wax moo di gannaaw compte bu Sen TV mat na at ak lu teg Zik FM barki de moo Ndiaye tey tribune ñu tëj ay compte am gis ngeen bugaan gee daal lu mu ci andi ay tontu commencé nañu def ay démarches dugal nañu ay këyit mat na léegi pratiquement lu ko jege un an te kenn tontu leen kenn faalewu leen te administration fa dëgg état boo dugalee këyit war na am tontu eh, ci gannaaw ba nga contesté jaare ko ci huissier waaye ñoom ba léegi kenn tontu leen ani lan moo waral loolu moo tax ñu ne acharnement la eh, jëm ci eh, ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany ndax boo jàppee jooni jooni la woon ay panneau publicitaire am wax na ko sànq tey ci groupe de presse bu D-Média yëpp ñu leen di jéem a faagaagal 2024 la ñu dëgmal te groupe D-Média peut-être du leen arrangé ñu ne nag président Macky Sall bëgg mooy tëj des médias laata 2024 yéen kaay bi noonu la gisee ñu ne bu fekkee loolu la si jublu de bu yeboo ñu xam ne amu ci gisin bu rafet du ci am wu rafet te askan wi du ñu def lu dul jéppi ko si